affaire yi neex rek ba tax ngay daal di nekk rek di yàq nit ah jàpp ci deru nit di ko wax di yàq nit di yàq nit ba bàyyi kooku man lu ma gën a jaaxal mooy dañuy ñëw gërëm la tey su suba ñu daal di lay xarab nee la nit bu fekkee danga wax mbaaxam ba àddina yépp xam ko waroo toogaat ba mu neex la rek nga daal di newaat kooku dafa bon neenaa naa la bu yàggee yow yaay nekk nit ku bon ki kon artistes yi seetaat leen seen jikko ak ni ngeen di doxalee bu ngeen ñëwatee ci nit mu di leen manager ba nga xamante ne management bi mi ngi neex affaire yooyu bu mu tax tamit ngay yàq ci dëru nit parce que nee naa la fii loo fi wax lu nekk rek di nga toog waxaat ko ndax nee naa la loo wax nit bu ëllëgee tamit dañ koy génneewaat ci réseaux sociaux yi te dañuy nekkaat di ko wax kon nee naa la artiste da nga war a diñ ci sa bopp am personnalité diñ am personnalité nag xam nga mooy lan nga xam yow yaay kan xam fi ngay teg sa tànk ki nga xamante ne moom ngay liggéeyal nga jox ko respect bu mot sec respecté nit nag du tax nga ragal ko ba lu nekk rek nga di ko wax ak di yàq dërëm ci keneen nee naa la nit da nga war a déggu déggu nag li la koy may nga am dignité personnalité ak nekk nit boo xamante ne rek dangay am classe classe nag boo ko déggee mooy ñi nga xamante ne di nga nekk nit liggéey ak moom ba seen liggéey jeex ndax nee naa la àddina lépp day jeex fi dara saxu fi te dara yàggu fi kon artistes yi seetaat leen seen jikko sama mbokk artistes yi laay waxal waaye nit waroo nekk dëwtiir ñànkatan bu nekk rek nga daal di cay tàq kon sama gars yi na ngeen xoolaat li ngeen di def bu baax te xam ne fii loo fi def wala loo fi wax rek dafay daal di génn kon tey sama vidéo dafa doon wax tey ci sama mbokk artistes yi maa ngi remercier ñëpp bu fekkee kàddu yi dafa ñaaw tamit maa ngi jéggalu ñëpp I love you so much thank